yaa xayra dayfin bil izi wal madadi ahlan wa sahlan wa tarhiban bilaa adadi asalaamaaleykum wa mbokki jullit mbokki taalibe yi ñu ngi dellu siwaat ci naafile yi nga xamante ne ñu ngi koy jëlee ci xuratul ayn sëriñ bi dafa wax ne guddig ñaareel ci weeru koor ku ci naafila juróom benn raka raka bu ci nekk nga jàng fatiha benn yoon jàng inna ataynaakal kawsara fukki yoon dees na ko jéggal bàkkaaram yépp bala moo jóge fa ko doon defe te dees na ko bindal tuyaabay junniy aj ak junniy umra ak yoolu ku saraxe junniy dërëm mel na ni it ku seeti junni ñu wopp ak ku gunge junniy néew ak ku jàng ab kaamil te dees na ko bindal itam tuyaaba ju ëpp jaamu yàlla ak juróom ñaar fukki at ngeen jëf asalaamaaleykum wa rahmatullah